bëggumoon sax dugg ci làmb ndaxte. ndaxte la ba mhm. pendant cinq ans. ñuy def promotion combat bii pendant cinq ans ñuy def promotion. Ama Baldé ak ki nga xam ne moom la bëreel. muy loo. Mhm. Modou Lo bu Rock mhm. Énergie. ñu dem ba à l'approche du combat ma gis fa ñu jox ko ñeneen. bokk na ci li ma gën a naqari moo tax bugg moom sax commenté ci combat bi dama cee am lu ma metti def nañ ko cinq ans pendant cinq ans ñu wax ñu yor ko di def promotion bi ñëw nañu ba fii bëgg fay def fettu fa xaw ma signature de contrat coow am. mu tas yàqu dëgg la fii ci suuf. waaw fii ci suuf keroog. Mhm. ñu doon fi ay lacrymogène ñun ñi xeex fi embouteillage am keroog oto yi. génnuñu ñibbiwuñu keroog oto yi. Mhm, mhm. Hmm. ba jëm ñaajo kay waaw ñun ñoo jaayi combat bi fii la jaree. moo tax ma xam ne BX bii man maa leen ko wax may leen ma tuuti. fii ak une semaine. nit dootul naan benn boisson bu dul bii. dëgg la man maa la wax loolu. dëgg la papa sponsor yi ñëw leen bu leen ragal. fii laa jaay Uniparco fii laa jaay EDK fii laa jaayee Jolof Chicken fi laa jaayee Jador dëgg la fii laa ko jaayee dëgg la Pape Jolof Chicken tey fii mu ne demande bi moo ëpp offre bi tout à fait ci sa barke waaw xam nga dëgg la de waaw kon mm-hmm. ma dégg la léegi nga wax ci violence waaye may ma tuuti mm-hmm. ma ñëw wax la lan mooy jur violence mm-hmm. ak violence bi ba fan lay jóge ndax violence bala moo am. un homme conscient n'est pas violent. tout à fait. un homme inconscient mooy violent. un homme conscient. déedéet jamais au grand jamais. waaye nga may ma. damaa am ay mbokk. yoo xam ne toujours ñu ngi jàkkaarloo avec le petit écran te ñooñu il faut may wax ak ñoom. guddi ak bëccëg lu dul loolu dina doy waar lool ndax tey soo xoolee tey mhm. waa kër bay bayaar manel ko du ngoy mais lu weesu loolu am na ku neex Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla daf may wax toujours jëmale ci gis-gis mhm. bokk na sax ci ñi doon jooy naan gis-gis lan moo tax du teel a commencé ndax doon ciy wax loo xam ne am na gën a yoo xam ne doon yu teel a tëdd. dëgg la Abdoulaye Sylla mu baax mi. Abdoulaye Sylla maa ngi lay nuyu bu baax Abdoulaye Sylla maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax papa. waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu sax na maam Moussa Tamba ba sëñ Touba Cheikh Momadou Fadal ba kooku sëtu Baye Baye Armanel Kodou Ngoy la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu Ndeye Ndoumbe Fall bu Bambey yaay baayam day dumbee maa ngi lay nuyu bu tonton Serigne maa ngi lay nuyu bu baax a baax mhm. soxna Jabaara Fall sëriñu jigéen ñi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax Sadaga bu tonton Baye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di la nuyu sans cesse di nuyu bu baax a baax a baax Sadaga tonton yëngi sax na maa ngi lay nuyu bu baax fàttewuma la benn yoon di nuyu nag sama yaay sama yaay saa si xura jàpp bu tonton El Hadji Ngayta saa si depuis les États-Unis d'Amérique maa ngi lay nuyu uh-huh. di nuyu sama sœur ba Khady bu yaa Ngone Ndumbe Khady Tall Ndumbe uh-huh. maa ngi lay nuyu baax Khady Tall maa bu baax a baax di sama jigéen soxna Faat Jeng bu yaay Khadijata Fall bu baay Aline Jeng Kambel di nag sama yaay yaa Khadijata Fall ñoom yaay Fatou Kuri yàlla na gudd fan lool ci barke borom Touba ah yaay Fatou Kuri yàlla gudd fan lool ci barke borom Touba Mbacke yaay Oumy Fall yaay Gan Fall mm-hmm. yaay Sadaga macha allah yaay Xadgata moo yar mère boobu moo ma yar oh, waaw moo waaw ñoom day fii yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu am na benn woy buy wax naan wax ma foo yaroo ma yaroo di fa ah, macha allah tey li ci doomu aadama moom la ma kii moom la bi jàngal li ëpp importance ci àdduna. partagé ñu ko ñun ñi. xàmmee ak ràññee. xàmmee ak ràññee. moom la ma mère bi njëkk a jàngal. ak bëgg mbokk. bëgg mbok macha allah dafa bëggoon mbokk ba sama yaay yëpp doon daan ëlbatiku. Mhm. di ñëw ci moom sama yaay gan faal. sama yaay maam say. Mhm. ñoom ñëpp doon daan ñëw ci moom. sama yaay ngoon ñoom ñëpp. doon daan ñëw. luy maa ngi ñaanal sama yaay maam say ñu ne. l'inconscience et l'insouciance l'insouciance des jeunes dans des... le milieu sportif. muy dans le milieu sportif. muy bëre muy nawetaan muy lu munti doon xale yi liñ ciy def. dans le milieu sportif. waaw. c'est court. loo ah, ci yokk hmm? loo ci yokk. mais pourquoi pas de façon générale la jeunesse face à l'inconscience. pourquoi pas. Ah, c'est pas possible. si mais booba éducation day dugg. formation de façon générale. de façon générale. mais comme tey mais dans le milieu sportif tout court. parce que tey papa ci côté boobu mais et les immigrés. waaw non les jeunes qui tentent l'immigration. mais qu'en conseil. da koy ubbi. papa qui meurt en en plein océan. mais papa def nañ émission immigration clandestine fan dafa dellusiwaat dinañ. ci dans les eaux abyssales. dans les eaux abyssales. te nga wàcc. en plein océan dafa bëri. ah. ils sont inconscients là. papa uti ah. rek bëgg a tekki. mais bëgg a tekki waaw mais du temu tay bi xam nga defoon nañu fi ah. immigration deux fois de suite. mais ils ne sont pas confiants. ils dëgg la mais tey ci ci ah. ñi fi nekk dañu wax ñi fi nekk. des jeunes face à la mort en plein océan. Mhm. nga xam ne loo mën a mën a fii leen rek ngay wax da ngay yéex dee mais da ngay dee su gaa tojee moom loo mën a mën a fii da ngay yéex a dee. da ngay yéex a dee nag ki mënul ndox moo lay njëkk dee génn ci. yow yaay mujjee dee yaay gën a mettile ndax di nga dem ba jën lekk la wala dal sa kaw wala am lu la këf te en plein océan kooku lu nekk nga fay gis ay mbëkk na ay jën yoo xam ne sunu ŋaaŋee da ngay dugg da nga leen gis ngi ci biir te géej gi am na ay jamono ca ginnaaw ci nawet bi neexoon na dafa meloon na am basan moo tax gaa yi daan def 4 jours. cinq jours mais actuellement. Mhm. non où li commencé na. dëgg la léegi Pape. Mhm. nañu waxtaanee thème mu tey bi comme dañ fi am. président amateur de lutte waaye tam am fi ki nga xamante ne bokk na ci ay supporters ay mhm. Pikine mhm. am fi Arona pour jeunesse éveillée mhm. am fi Rose ngir taxawaayam ci amatrice de de lutte yi ak de football yi ak jigéen ñi nga xamante ne dañuy nekk di daan seen doole ci biir euh, stade yi d'accord làmb ameek yépp te sécurité bi wóorul d'accord macha allah ayca demal waaw ayca yow demal yow kañ laa bëgg waaw man fi ma jëm moom mooy euh, li may njëkk a laaj toogal papa papa toogal mën naa jël kii ba pare di toog. gëmoo ko waaw léegi maa la ko ñaan. Ah, mënu ma jël BX ba pare di toog. léegi bàyyi non mënu ma toog mënu ma toog. waaw bu naree taxaw nii. Eh, tey ngay xam njëriñam. <laughs> waaw ayca ayca nañ la ba tey ngay xam njëriñam. ayca maa ngay déglu nga ne fooy laaj. <laughs> fi may njëkkee moom mooy facteur de développement bi nga xam ne dafa dem ba mujj doon champ de bataille. Mm-hmm. làmb. te indi naa ko caare yi géej mu ànd ak Gaston production. Mhm. les non voyants artisans. yaa ngi koy fàtte les non voyants artisans. waaw ñoom sëñ Salim. ñoom Saliou Seck mu indi ko mu ñàkk ci ñoom presque million. wallaay maa ko fi indi woon mu ànd ak Gaston production ñu tëgg làmb ja mhm. diggante Ousmane Diop ak Kati Junior ñoom ñoo bëri. jàmm dong moom moo ci mujj. boobu agression amul dara amul <coughs> mu albatiku muy def rolam kii fanaan na àll ngir man sama doom bàyyi ma njoon bëri na ak mbay juuf yéeg ko ak ku mbay juuf jàpp ko ca xabar ko delloo ko nu xeex ci làmb ji Badou Fall xeex ak Balde ak commandant Balde dóor ko mu daanu te commandant Balde boobu ma nga fa mhm. ñoom nekk fa ñu dóor booy ba gaañ ko ba damm ko ci guddi gi ba pare jël ko ne duñ ko bàyyi doon ko yóbbu ñu ne hôpital ñu ne yaa ñu jël ko yóbbu ko hôpital te ma bàyyi ma ñoom ñoo bokk benn baay keroog kii nelawul ba bët set di topp jeunesse bi di leen ñaax làmb yàgg naa am histoire mais pas comme ni mu mel tey mhm. boobu violence bi am tey amul làmb ji passé nag dinaa gërëm Ama Baldé ndax dafa apaiser Pikine mhm. dafa apaiser supporters yi di wax ne kooku nga xam ne jël nañ ko jàpp ko yóbbu ko ngir li mu def d'une part li mu def du yomb warul bëtt barrière romb service d'ordre bi dem di àtte mhm. kooku du na sàkk mais am na fi de am na fi de a fee léeg-léeg hmm. ba xëy na